asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu eh, di leen ziar di wax ngeen wii di abonné ci suñu chaîne bii di Diégo Parle Foot eh, lu ci am solo la te bokk na ci li ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax donc eh, di wax tamit également ñi nga xamante ne ñoo ngi si TikTok bi ñoo ngi leen ñaan ngeen dem ci YouTube bi tamit seetaan vidéo bi ba mu jeex incha allah donc dañuy ñëw ci match bu Sadio Mané tey équipe di Al Nassr daf doon football. première euh, match première journée du championnat saoudien donc nous prime league saoudien ba donc Sadio Mané aujourd'hui il a été titulaire ci bi la match équipe bam don jàmmarloog équipe bi ñu nan Al Ittifaq Al Ittifaq nak pour ñi ko xamul euh, xam nañ né équipe bu mag la bu nek fofé ci Arabie Saoudite donc di wone ay prestations chaque match chaque saison tamit di def ay prestations yu baax a baax moo waral tey bi Al nasr euh, jàkkaarloo mom metti woon lol match bi metti ci moom trop même si que suñu international sénégalais di Sadio Mané qui première minute match marsibi à la 4 euh, minute ci la contre euh, compteur biome donc google première biome a club un di Al Nasri donc euh, Al Nasri tel nam avantage ci match bi mais équipe Bidi Al Ittifaq daf ko won que né même si que yam un ëpp ay joueurs yo Jury de classe mondiale même si il y ëpp un yi nga xamantene ñom nga jënd même si il y un ëpp li nga financement marché transfert bi parce que non la demee won match donc c'était très intense donc intensité bi et tout donc euh, wa wa Al fa teg ko ci ci ci kaw ki nga xam moy Al Nasri ba nga xamantene ne sax ñoom ñoo mujj remonté dal di gagner 2 buts à 1 ci ci ci ci ci match bi mais Al Nasri donc meun nañu wax li li ni yakal mo à chaque fois ku ci jël bal da ngay bëgg di contrôler lu bari euh, alors que. day am ñoo xamante ne dañuy disponible pour nga mën leen a paas ku ci mel ne suñu international sénégalais à chaque fois dafay disponible ci aile bi pour nga mën ko paas mais boo jëlee ku mel ne Alexis Telles Brozovic li ñu téye bal bi dafa bari tellement que mooy loolu dafay yéexal loolu nag luñ mën a ñàkk la transition yi yéexi war nañ koo wàññi.